jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee ci émission mag bi di dakaar Buzz social di nuyu képp kuy bàyyi xel émission bi rek moo xam ñu nekk fii ci Sénégal di nuyu tam ñi nga xam tam ñi ngi bàyyi émission bi xel te nekk ci diaspora bi tàmbalee ko suma rakk Mouhamed Amar di ko nuyu di nuyu Girif Sougou ak Khadim Amar ak bonne volonté yëpp rek soxna Awa Top Ndeye Absolu soxna Aji soxna Fatou soxna Alima. di nuyu njub di ñaan yàlla defal leen jàmm ak sutura di nuyu itam groupe bi Dakar Buzz Social an taxuñu wéradi ñoom sëñ Jili Njaay sëñ Mamor sëñ Xaadim Sarr soxnaa su ngom borom daaru di nuyu itam nga xam ne moom mooy Dakar Buzz Social bu France soxnaa su tam jiite ko di ci liggéey liggéey bu am solo ak Dakar Buzz Social bu Amérique soxna seen bu jiite ko di nuy bon volonté yëpp ñëwaat tey ci beneen cas boo xam ne tey metti na métti na trop ndax boo ko gisee rek xam ne mi ngi jànkuwanteeg ay coono mi ngi jànkuwanteeg ay jafe-jafe di ñaan nag caamu yàlla yi nga xam ne ñoo tàmm di seetaan bi sociale lu luñ ko mën a dimbalee rek ñu dimbali ko ndax sonn na te néew na doole lool ci faj gi waaw ba tax na ñu ciy tàllal loxo jaamu yàlla yëpp moom nag mënul wax parce que feebar fi mu toll la mënul parce que dañ ko monter ci bakkan bi ci lay def léppam muy cas boo xam ne sérieusement fa coono yam daanaka fa la tàmbalee. mais sant yàlla rek tey ñaan daal yaakaar gin am ci Dakar Buzz yàlla la ko yàlla mottali ma toog ak ki xam ne moom moo ko accompagné moom mooy gën a mën a expliqué bi nan la tudd ak lii ko dal kañ la ak ci yan moment la ko dal si maa ngi lay maa ngi lay fay sëñ bi. noo tudd. man Kumba Ba. malade bi nu mu tudd. Ami Ba. sana lanam la. man sama doomu nijaay la. lii ko dal kañ la. waaw lii xaw na yàgg trop parce que si doomam bi nga xam ne mooy def sixième. kii na troisième. bi mu ko ëmbee daal bi moo accouché si la feebar bi commencé wane boobu ba tey ñu ngi si jéem di di ka daanoo ba affaire yi Kaolack la nekkoon ba ñu mënatuñ ko faa faj ñu indi ko hôpital Fann hôpital Fann léegi ñu téye ko fa un mois si lañ ko defaree opération bi dugalal ko raakool bi da daanaka gëj na lekk si gémmiñam depuis mois de février mois de février ba tey jëlul ceeb lekk dugal ko ci gémmiñam raakol bi rek ruy rek ruy rek lay dundee waaw vraiment def nañ lu ne ay scanner lu nekk ñu bindal ñu vraiment papa jees yi nekk jëkkër ji dafa néew doole instant moom yor na ñaari xale ñu wax mu bàyyi waaw yaay la ñëw te ñun tam tanewuñ leen parce que ci location lañ ñu fekk mais dañoo obligé génn benn néeg bàyyi leen ñun ñuy xatloo ci benn néeg lépp ngir jàppale ko parce que suñ mbokk la amuñu nuñ ko def vraiment dafa metti dafa metti euh, dafa metti lu metti euh, jullit lay dal nanu sant yàlla ci xam ne euh, yàlla moom ku bëri yërmande la tey metti na trop sérieusement waxuma dara sax mais laata ngeen dem hôpital loolu ngeen di daj. lu ne la daj parce que gis nga tey man maa xëy indi ko luwe oto mais sama poset gis nga li yàlla di dogal fi ma taxawoon di sarax taalibe yi poset bi fa la yem wallahi al azim te transport bi si la nekkoon noonu la ci poset bi am na 35000 yu si nekkoon moom la ñu war a fay chauffeur bi mille francs ak kii ñuy jënd si hôpital bi ordonnance yeeg yooyu poset bi noon laa ci yem fi ma taxaw di sarax taalibe yëpp ndeke poset bi daanu na man pour man maa ngi ko teg si oto bi ndeke dafa wadd wër nañ fu ne boobu mooy bi ngeen dem hôpital. waa bi ñu demee bi ñuy doog a yegg si hôpital la loolu am. hôpital la waddee. waaw hôpital la waddee si buntu hôpital bi. ba nii gisoo leen. déedéet wër nañ ba sonn billaahi gisuñu ko wër nañ ba sonn. loolu loolu du problème loolu moom sant yàlla rek yàlla na yóbbu ay ay seen ay. yàlla na yóbbu seen ay lan ngay wax ñi lay seetaan ñu mën la dimbali ci sa mbokk mi tey mu mu jóg ndax sonn na. waaw vraiment sonn na sonn na ay doomam bëgg nañ ko gis nañ ma jàppale te yàlla tax luñ ma mën a jàppale rek nañ ma ko jàppale entre jullit ak jullit ak moromam vraiment dafa metti tey bu doon doole am na duñ fi ñëw di sàkku ndimbal mais nag yàllaa ko bindee nii dañ koy sante yàlla waaw ñu ngi ñaan yàlla daal nañ ñu jàppale te yàlla tax lu ñu mën a jàppale rek nañ ñu may loxo te yàlla tax hôpital lu ñu leen wax ñoom dañuy ñëw ba faj gi fan la tool dañuy fan koy defal pansement bàyyi mu dem wala fan façon faj lañ koy faj lu ñu leen wax. waa ñoom daal bu ñu ñëwee dinañ ñu bindal ay scanner ñu bindal ay analyse saa yi ñu ñëwee bu ñu delloo dinañ def analyse ñu ne ñu def leen ay scanner parce que scanner bi ñu mujjee bindal dafa cher ñu ngi ko teg foofu defuñu ko waaw boobu dafa cher defuñu ko boobu bu 150 000 la waaw boobu 150 000 la boobu defuñu ko analyse itam dafa cher. dañuy débrouiller def bii bàyyi bii loolu daal moo am. jërëjëf mbokk yi muy lu métti loo xam ne euh, toujours rek nga koy gis ci social bi mooy kaa bu ñëw rek gën a métti kaa bu ñëw gën a doy waar mu lay wan di tourner nit ñaa ngi ay jafe-jafe nit ñi ñu ngi ci ay problèmes yoo xam ne mënuñu ko expliquer malade bi dafay fàtt gis nga ko nii muy refilé wu dafay fàtte gis nga ko nii euh, mais sant yàlla. sant yàlla massa massa massa massa yàlla yàlla may la tan yàlla wéral la ci barke yonent bi yàlla saafara ko te incha allah am nañ ci yaakaar massa massa massa massa yàlla bi mën a saafara te ku mu saafaraal nga saafaraw yàlla yàlla may ko wér mi ngi mënul wax parce que dafa ne ci ay problème di santaat yàlla rek ci jaamu yàlla yi nga xam tam ñi ngi bàyyi xel social bi muy bonne volonté yi ma leen di gërëm di leen sant ndax ki jël ñaxam dimbalee ko ki feebar yàlla moo lay fay te gis naa yéen bonne volonté yi saa su ne yéen ngi koy def yéen ngi jël seen ñax di ko jàppale ñi néew doole loolu nag yàlla mi mën a fay dina leen fay fu bonne volonté nekk rek maa ngi gis liggéey bi ngeen di liggéey ci malade yi nag yàlla moom seen fay àdduna nag loola yomb am na ku mu jafe bu la lekk yombee am na ku mu jafe bu la am na ku mu jafe bu tëdd nelaw yombee am na ku mu jafe bu nee laa nit mi ngi dund jafe yi day doy waar moom ñaataat la am. Hmm? la kii kii instant yi am na 36 ans. 36 ans. 36 ans xale la am na ñaata doom. ñaari doom la am. Mhm. lii ci doom bi mujj la ko jëlee. waaw doomam bi mujj la ko jële ñaari doom kese la am. xam nga pël yi dañuy teel a maye seen doom. bi muy am fukki at ak juróom la sëy. Mhm, si la sëy. massa ñu ngi ñaan yàlla lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci di sant yàlla nag ci plateforme boobu di 78 601 11 11 ñu gis ni ngeen fay jàppalee malade ñu leen koy joxaat comme yàlla def na moom bi mu jógee tey suba dem hôpital pochette bi mu yoroon def ci 35000 dafa wadd foofu ñu wër ko ba sonn gisuñu ko xam nga koo xam ne bu xëyee balaa lekk balaa naan day am problème su fekkee waddal na 35000 day metti te 35000 yooyu li wér te wër mooy laata ngeen ko am dugg ngeen dama ko leb waa dama ko àbb waaw dama ko àbb démb si benn kii ndax yaay ji dafa ñëw ne ma suba lañ war a dem rendez-vous te dara amu fi ma dem sama benn dëkkandoo expliqué ko mu ngi yor keesu tuur si la ma aal waaw si la ma aal jërëjëf gis nga noonu rek moo tax lu ay yàlla lu baax rek lay def waddal na 35000 Dakar ba dina ko jàppale mille 40000 mille yooyu bu demee kala ab kala abaloon pour mu dem hôpital nga mën caa jël fay ko Euh, li des yàlla bari na sutura Dakar Buzz li may wax rek du tas yaakaar ku fi dikk rek mu néew mu bari dina jël ci ñax xam jox la loolu nag bu buñ ko mënee bon volonté yi la dinañ ci ñaanal di ñaan yàlla gën leen a taxaw jàppale leen jëlee ko ci plateforme boobu muy 78 611 11 ñu gis ni ngeen di dimbalee nit ñi moo tax lu ci waaye lu ci ñëw rek demaat ci maladie comme bi muy jëw hôpital waddal na mille moo tax fi ñu nii dañu koy daal di jox 40000 jàppale ko te xaar nag vidéo bi dugg ngeen mën cee def seen ñax ñu jox ko trente ñu jox ko ñu jox ko quarante mille it Seydou Dakar Bus jàppale na ko quarante mille jële ko ci plateforme boobu nga xam ne tey mooy soixante dix huit six cent onze onze euh, tey feebar bi xaw na leen a yàgg na doole bariwul balaa ngeen a dem hôpital fu na ngeen di dugg di ngeen ñaan lebaatu loo ne def ko yàlla def démb nga dem lépp ta xaalis pour yóbbu ko hôpital ñëw ba ci buntu hôpital ba xaalis ba wadd Dakar bës di ko ñaanal ndimbal jàppale ko quarante mille nan ngeen gisee Dakar Buzz. waaw man kontaan naa si ñoom yàlla na seen taxawaay yàgg parce que nee nañ yàlla nee na boo defee benn bu baax dina la fay fukk yu baax donc man dama leen di ñaanal ca kaw ca kanam parce que vraiment. ku am yërmande ku ne jullit nga ndax yàlla du du tappe si xol boo xam ne dafa kiñaan yërmande yéen da ngeen baax parce que bi ma la commencé woo ba tey vraiment rëccuwuma si ndax mosoo ma ñàkk sa vraiment waaw lu ku baax nga jërëjëf gis naa seen taxawaay yàlla na leen yàlla fay. waa li ngeen di def yàlla na jëm ci kanam si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sa diggante ak mère Ndioba moo ma booleeg yow waaw mère Ndioba ma booleeg yow ku baax la parce que dama ñëw si moom jaaxle ñuy waxtaan fekk robb bii la ma jox bi ma sol nii moom xam nga day jaay ma ne ko mère bëgg naa si robb yi mu ne ma jëlal ma jël sol léegi mu ne ma an sa malaat bi ma ne ko man sama malaat bi dafa sonn mère mu ne ma lu ko dal ma ne ko ah mère man kay lii mënuma laa lu ko dal parce que depuis février ba tey si raakol lay lekk si lay naan man daal nii laa ko gisee en même temps ñu opeere baat bi teg si yooyu yëpp mu ngi ci instant mënatul wax lu muy def nii rek lay def mbaa mu ne mm, loolu daal la mën man daal jaaxle naa te fan yi affaire yi da koo attaqué sonal ko man si la si moom la ñuy fanaan dañuy fanaan a toogaanu ba bët set mu ne ma ah ma ne ko waa mu ne ma léegi man dinaa la booleek sama benn doom waaw waaw Fadel dinaa la booleek Fadel mu jàppale la te yàlla tax te boob ba tey moom it mu ngi siy def jéego yu baax ndax mu ngi woote guddeeg bëccëg am en même temps man mii dafa may woo lu bëri vraiment dafa may woo di si man waa nit ku baax la vraiment yàlla na waa jërëjëf yàlla na jàmmam yàgg nee naa ko yow doo torox ku baax nga parce que mënoon nga ko xam noppi bàyyi ma sama coono mais dafa mel ni tey dindi na ma si coono ndax vraiment lii dal na sama xel du dëgg yàlla na seen jàmm yàgg vraiment yàlla na seen jàmm yàgg kontaan naa. amiin yàlla yàlla kontaan yàlla yàlla taxaw ko te yàlla may malaat bi wér jafe-jafe yi du fi jóg <coughs> malaat bu jóg ñaan lebaatu waan daanaka pour dem hôpital li nga yaakaar ni moom nga yóbbu hôpital dem ba ci buntu hôpital ba mu wàdd loolu dafay metti boo amul ngëm-ngëm tuuti mën ngaa saalit waaye Dakar ba comme ba dalee ne trente cinq mille Dakar ba jox na ko quarante mille te ni ñaan mu barkeel su barkeelee dina jur leneen eh, ku ko bëgg a jàppale tam numéro mi ngi ci baaru écran bi waaye malade bi sonn na ba fa coono yam malade bi am nañ ci ay problème nan ko dimbali nañ ko jàppale te yàlla tax te xam ne lu ci waaye def yàlla moo la koy fay parce que sonn na te mi ngi ci ay jafe-jafe li may wax rek ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm gis la cadre bi Seydou laa ci àndal. malade bi nag jox nañ ko 40 mille jàppale ko lu ci waa mën nga def ko ci moom mënul wax muñ ngi cay jafe yoo ñu ne mënul wax peut-être dina dégg soo waxee dina dégg mais mais du mën a wax ah massa yàlla yàlla wéral la yàlla yàlla jàppale la yàlla yàlla taxaw la yàlla yàlla suturaal la may la wér di nga wér incha allah di ba ma ñëw jël si waat la ci beneen façon ngay waxtaan ak man incha allah dana am dégg nga da jàkkaar ba jàppale na la 40 mille jox la ko. ci faj mi pour yàlla gën laa may wér taxaw la jàppale la ci barke yonent bi donte xam naa ne mun a wax mais nga ñaanal Dakar Buzz ñaanal ñi nga xam tey ñu ngi seetaan Dakar Buzz yàlla ngeen leen a may doole ba mën laa dimbali bul jooy ñaanal rek ñaanal rek. amin amin amin amin amin yàlla yàlla may ñu ci ndam ñun ñëpp ci barke yonent bi jërë ngeen jëf